asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey jii bésub dëgg la fa fële nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale lu ko waral moom mooy ne tey jii dina ñu taxawal am déet benn commission d' enquête parlementaire goo xam ne dafa fas ne li ñëtu lii nga xam ne moom la ñu teg ci ndodd ñaari ay magistrats yoo xam ne dañoo bokk ci biir conseil constitutionnel aujourd'hui kay bii di Sud Quotidien ne tey jii kon ñii nga xam ne ñoom ñooy waa parti démocratique sénégalais ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo sooke loolu yëpp tey jii kon dinañu am lu ñu bëgg fële xam ne moom mooy ci assemblée nationale wala boog duñu ko des daal moom mooy ne seen procédure bi nga xam ne nag moom la ñu jaarale ngir fas yéene taxawal li nga xam ne moom mooy commission d'enquête parlementaire boobu sax dafa daal di gaaw ndaxte culikay bii di Sud Quotidien ne mode fast track de la ñu ko daal di jaaralee ndaxte ba ñi nga xam ne ñoom ñooy ay député yu bàyyi ko ci parti démocratique sénégalais xam leen ne ñoom dañoo bëgg a li nga xam ne moom mooy commission d'enquête parlementaire ci saa si nag ba ñu ko bindee la ko bureau bi daal di dëggal direct daal daal di amal ay ndaje mu amaat yeneen ndaje yoo xam ne nag ñoom ñoo ci topp te loolu yëpp ci diir bu gàtt ba nag tey ji la ñu daal di woo ñi nga xam ne kon ñoom ñooy député yëpp ci wàllu plénière ngir ñu ñëw wax waaw am déet dañuy taxawal li nga xam ne de moom mooy commission d'enquête parlementaire aujourd'hui kay bii di point actu moom it daal dinay gis ne tey ji ba supp dëgg la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo far ci ginnaaw Amadou Ba ak ñi nga xam ne ñoom ñoo far ci ginnaaw Macky Sall ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñooy waa APR dafa mel ñu ngi doon jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy libéraux yi wante fan yi nag ne dañoo dellu ginnaaw yeewi askan wi ak taxawu Sénégal ñoom dafa mel ni ne voté nañu ngir ñu daal di taxawal li nga xam ne moom mooy commission d' enquête parlementaire bi ci wàllu commission des lois benn député di gis mu lànk carré wante ci kay bii mi ngi ci yokk di ñu xamal ne yoo xam ne dañoo far ci ginnaaw Amadou Ba ñoom de dafa mel ni ne ànduñu nag ngir di taxawal commission d' enquête parlementaire boobu wante ci kay bii di point actu la yokk di laajte moom mooy tey jii su fekkente ne nag commission boobu jàll na lan mooy nekk conséquences yi ci wàll gi ni mel julikaay bii di si quotidien seq na ci waxtaan ak docteur El Hadj Oumar Diop moom mi nga xam ne jàngalekat la ci faculté des sciences juridiques et politiques ci université Cheikh Anta Diop de muy gis ne coow li nga xam ne moom moo am jógee ci décision bi nga xam ne conseil constitutionnel daf ko jël keroog ba muy dal di li mu candidat yi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci biir élection présidentielle bi moom mu daal di gis ne coow loolu moom ñàkk ndaxte fu mu nekk ni assemblée nationale amul benn dogal boo xam ne mën na kaa jël ci décision yi nga xam ne daal conseil constitutionnel daf ko fee teg wante ku ci mel ni Birahim Seck te mu daal di jiite forum civil julikaay bi di la peuple moom mi nga xam le ne moom la mu gëm moom mooy ne su fekkente ne magistrat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk te conseil constitutionnel ñoom mun nañu dégg ñoo xam ne ñoom ñoo nekk ci assemblée nationale maanaam ay député déglu tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi kon kay ñoom tamit war nañ leen a mën a déglu li ni mel la daal di gëm xamle ko ci biir colikay bi di le peuple li am ba des daal colikay bii di critique la mu gis moom mooy ne kii dafa mel ni ne njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom ci boppam sax moom moo bëgg a coow li ñu daal di koy ndarkepe ndaxte dafa mel ni ne su buggee tey ji ñu daal di liñatu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca conseil constitutionnel bëgg na mbir yi daal di leer nañ wante commission d'enquête parlementaire boobu tey ji colikay bii di le quotidien la mu ca gis moom mooy ne suñu moytuwulee sax du antu du mujjee fenn ndaxte plainte bi nga xam ne juge Cheikh Ndiaye daf koo daal di fësal mun naam sax ne plainte boobu day neenal lépp loo xam ne dafa jubloo ci wàllu commission d'enquête parlementaire boobu ëcolikaay bi di l'info moom ma ngay ñëwaat ci wàllu élection présidentielle bi nga xam ne moom la ñu euh, dëgmal tey ji sax muy def ab ligne ci élection boobu ndaxte guléet ñuy nemmeeku ci ab élection présidentielle mu am ci lu ñaar fukki candidat ñu ne déet ni waay ki nga xam ne nag moom moo fi nekk njiitu réew du nekkaat candidat wante it ki nga xam ne moom moo gën a fës gën a siiw ci wàllu l'opposition bi moom it du bokk ci wàllu euh, élection boobu euh, culikaay bi di l'info daal di gis tamit ci ñii nga xam ne tey jii ñoom ñoo nekk ci nguur gi dal di fay am ab candidat nee nañu nag seen candidat boobu de doy na waar ndaxte nag nekk na ab candidat goo xam ne moom dafa nar a sukkandiku ci bilangu Macky Sall ngir wàllu campagne am te pourtant nit ñi fu mu nekk nii la xaar ci moom moom mooy mu fësal boppam wane boppam ñu war kaa mën a wóolu waa l'info yéen opposition bi ñu gis nag ne nekk na ab opposition boo xam ne <laughs> ku si nekk fële nga fëxee rek ñoom ñu daal di booloo rax ci dolli sax seen booloo boobu moom nekkul luy dëgg ci seen biir xol te loolu mën na leen a ay jafe-jafe ngir ñu war a mën a jàkkaarloo ak ci ni mu waree ak candidat wu pouvoir bi ba léegi ci wàllu élection présidentielle yooyu nga xam ne moom la ñu dëgmal gay Gueye Dany moom ma ngay xamle ne ci samedi gi ñu dëgmal dina daal di xamle kan la nar a jàppale waa Pastef demoon nañu seeti ko wante wu ci kay ngi ñuy xamal ne Bougane def leen wax ne dafay waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy délégué départementaux ak communaux yi ba pare euh, soog di nag fësal tontoom ñu jukki ci wàllu guerre ndaxte démb waa Transparency International daal dina ñuy euh, fësal tolluwaayu réew yi ci wàllu guerre ñu gis nag ne réewum Sénégal de position nga mu ca am baaxul dara waay julikaay bi di 24 heures daal di fësal ci xëtam bu njëkk di laajte naka la ñuy mën a def nag ba guerre daal di jógee fii ci biir réew mi jeexale ko ak julikaay bi di Le Soleil ma ngay ñëw ci ab tey ja am démb fa li nga xam ne moom mooy ca xaar yàlla benn immeuble boo xam ne dafa daal di nërmelu mu am ci lu tolloog juróom-ñaari nit yoo xam ne dañ cee ñàkk seen bakkan fukk ak ñaar daal di am ay gaañu gaañu bu Dakar Alhassane Sall uh, ma nga xam ne ma nga woon ca bërëb ba jëyee jooju amee daal di xam leen ne suñu moytuwulee sax ñi ñàkk seen bakkan dina gën a yokku ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi leen di wër ci li nga xam ne daal moom mooy bâtiment bi nga xam ne dafa uh, daanu ñii nga xam ne ñoom ñooy sapeur pompier yi ba léegi ñoom ñu ngay wéyal seen liggéey liggéey lii moo li gën a fës ci biir autolikaay yi ñu leen mesdames et messieurs bonjour ce mercredi c'est de vérité pour la commission d'enquête parlementaire requise par les libéraux du parti démocratique sénégalais contre deux membres du conseil constitutionnel accusés de corruption et autres collusions nos confrères de Sud Quotidien nous expliquent qu'aujourd'hui les députés sont convoqués en séance plénière pour statuer

députés du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Et à en croire nos confrères du journal Sud Quotidien, en moins de deux, la balle était passée à la commission des lois et des finances de l'Assemblée nationale qui devait statuer sur la question avant son passage en plénière aujourd'hui. Nos confrères du journal trouvent également qu'aujourd'hui, c'est un jour de vérité, mais pour les pro-Maki et les pro-Amoudouba. Car à l'Assemblée nationale, d'enquête parlementaire. Même l'APR qui soutenait les libéraux s'est rétracté. Yehui et Tahaou ont voté oui en commission des lois. Seul un député s'y est opposé. Et maintenant, reste à savoir quelles seront les conséquences si la résolution passe. Quoi qu'il en soit, retournons avec nos confrères du journal Sud Quotidien qui se sont entretenus avec le docteur El Hadj Omar Diop que l'Assemblée nationale n'a aucune prérogative pour enquêter sur les décisions euh, du Conseil

constitutionnel, c'est un véritable malaise qui s'est installé au sommet de l'État. Déjà que le dossier secoue l'Assemblée nationale depuis que les magistrats se sont ligués pour ne pas prêter le flanc, le chef de l'État Macky Sall lui aussi dans les dispositions de dissoudre le Conseil constitutionnel pour dégonfler la bulle. Mais qu'à cela ne tienne par rapport à cette affaire de corruption présumée au Conseil constitutionnel, Birahim Sek fusille l'UMS dans le quotidien peuvent entendre des membres de l'Assemblée nationale et de l'exécutif, la réciprocité devrait être de mise dans une démocratie. Donc c'est une crise institutionnelle qui se dessine ici au Sénégal et en plus se disent nos confrères du journal LAS, cette commission d'enquête parlementaire ne fera pas long feu si l'on sait que les juges en question soutenus par l'UMS n'accepteront pas de déférer devant la dite commission. Dans le journal L'Info, nos confrères du 25 février 2024. Nos confrères ont remarqué un nombre record de candidats, absence du président sortant et du leader de l'opposition, fissure de la majorité et émiettement de l'opposition, un ensemble de faits inédits qui rendent le scrutin du février encore plus indécis. Nos confrères du journal L'Info ont ensuite analyser le profil du candidat de la majorité présidentielle, un candidat qui n'a jamais été dans une position aussi inconfortable et qui mise sur le bilan de Macky Sall alors que le peuple attend qu'il montre qu'il est un leader digne de confiance pour diriger le pays aujourd'hui à la croisée des chemins. Nos confrères du journal L'Info ne s'en arrêtent pas là, ils se sont aussi intéressés à cette opposition hétéroclite, incapable de se retrouver sur l'essentiel, à savoir resserrer ses rangs, car son émiettement, un avantage pour le candidat du pouvoir, ne peut que la conduire à sa perte. Bougan Gaydani donne rendez-vous samedi prochain pour se prononcer sur la main tendue par le parti PASTEF. Bougan a déjà convoqué une assemblée générale impliquant tous les délégués départementaux et communaux et samedi prochain, il va faire une déclaration pour dire quel c'est de la corruption. C'est la question qui barre la une du journal. 24 heures, nos confrères reviennent sur l'indice de perception de la corruption pour l'année 2023 publié par Transparency International. Et selon nos confrères, le Sénégal dans la zone rouge et occupe la 43e position sur 180 pays et depuis deux ans, le Sénégal a marqué zéro point dans la contre la corruption. Terminons par nos confrères du journal Le Soleil à Khariala. Ce drame a et 12 blessés, un bilan provisoire selon le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, et qui les services de secours continuent les fouilles dans les décombres.